jàngoro jàngoroy coronavirus bi am na njeexantal ci dem dikk bi fii ci Touba quartier Ndamaatu ci corniche kër Serigne Modou chauffeur taxi yi nga xam ne ñoo fa nekk nee ñu dem beeg dikk bi gàllankoor la am ndax mënatuñoo gis client lañ daan am bés bu yàlla sàkk wàññeeku bu baax a baax. comme feebar bi ni mu amee wax dëgg yàlla liggéey bi laal na ko liggéeyatuñ suñu oto dañ ko gaar man sama oto ma nga kër ga ma gaare keneen noonu keneen noonu ngir lan ñàkk am lu ma yab li may lakk gaas wàll ñëw mëntu ma ko cee am. ma ko ci kër ga ma bàyyi suma ma xëyee sama tànk la doxa ñëw fii lu ma for dépassé ko moom ma gën a yombal ma koy dawal man mii de wax ak yow démb xëy naa ba ngoon jot wenn 400 francs laa am téeméer laa am naan ak ndox mu des 400 sama oto ma gaare ca kër ga waaw fi ni nii sa njaboot laa yor li may tuuti tuuti nii njaboot laa yor damay joxe dépasse li tax parking bi amul oto ñëpp gaar nañ seen ñi nga xam ne nii dañ leen a jox oto embauché leen mënutu jaam dara dellu nañ seen oto toog nañ loola nag boo doon ne borom kër war-war bi tege sa kaw ba nopp nga gaari sa oto yaakaar naa ne da ngay soxla ndimbal lool lool lool lool. oto yi fi doon oto bi xëy di yem ñeenti nit dem ba yem ñaari nit mënatoo koo am moom xam bi ne yàlla dogal ñoom moom oto ba tey it mu koo am. ñun nag feebar bi wax dëgg yàlla dégg nañ ko ni ko ñëpp di déggee te tamit charte yu gouvernement bi joxe bi yëpp ñu ngi ci raxasu bi ñu wax nii ku ci yab client boo ñëwee bala ngay wax ak kenn da nga raxasu eh, ma nga nelee suñ kii war a xasukaay ma ñoom chauffeur yi nee ñu mënatuñoo am dépense bu mat droit de stationnement yi nga xam ne sax moom la war a fay mënatuñ koo am dafa am bànqaas boo xam ne moom dafa bokk ci ñun sax ci ñun loolu nag ca mënuñ koo ñàkk a tudd muy la mel ne droit yi ndax droit yi wax dëgg yàlla man de du la nëbb dëgg wax dëgg yàlla dëggaguma ko bari naa ñu ko dëggulit nag ni samay morom ndax la tax mënuñ koo dagg mooy lañ koy daggee day tolloog seen xoromus kër kon nag naa ne dañ koy war a mën a xoromoo droit de stationnement yi ñu 3000 francs yi da nga xëy 3 jours ba 4 jours doo ko mën a dajale. ca 3000 francs yooyu wax dëgg yàlla bu fekkoon ne dagg bi da nga ciy gis sa bopp nga mën cee gën a sawar waaye wax dëgg yàlla day defoon ko Touba ca kanam day mu doon sart yoo xam ne moom la kanam teg ñu koy tegoo moo ñu gënal lool ndax nit ku nekk la ngay def nag boo sañoon na ca gis sa bopp. ñoom chauffeur yi nekkee ci Touba Ndamaatu corniche kër Serigne Modou nee ñu mboolem recommandation yi nga xam ne état bu Sénégal joxe na ko respecté nañ ko waaye ñuy xaar ndimbal li nga xam ne moom la président de la république wara séddale te ñoom dégguñ ci benn yoon ñu limaale leen ci ñu ci xaar seen wàll. Olof Ndiaye ne mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk ndax bi ñu xoolee bànqaas yi bari na ci bànqaas yoo xam ne dégg nañu ñu tudd leen ci ndimbal mi waaye yi dafa bari dafa dafa mel dañ leen a ci tudd mu demee ni commission taxi wala urbain ak camion gros yii amuñ am bokkuñ ci tur ndimbal yi ñi xam ne ñi ngi ñi ngi dégg président mi ngi koy séddale xam ne lii ndogal loo xam ne suñu borom la jógee jógewut ci moom mais mi ngi jàppale doomu aadama yi ñu ngi koy ñaan suñu loxo jotut ginnaaw suñu ginnaaw ñu ngi ñaan lu ñu mën a jàppale ci ndimbali mu jàppale ñu ko bu fekkee dañuy dimbali safoor bi amul bulletin d'embauchement ñi ci ëpp journalier lañu maanaam fay la vingt mille francs par mois vingt mille francs boo calculé mënu la mënu la satisfaire ci xale bu ndaw laa la wax de boo xam ne ni day jàngi école mënu ko satisfaire nga jox ko magum jëm mu doon borom kër lii wëlbati ko daal suñ kaw kon day métti lool daal dañuy ñaan dimbal dañuy ñaan lépp loo xam ne bii daal jóg na dugg ci réew mi ñu boole ñu ci ñun taximaan yi ñi ngi boo bokk nekk Touba buntu kër sëñ Móor bu sa jëng garas bi ñu tudd xaar yàlla ak garas bii nii mais ñaari garas yi benn lañ tëli moo ñu xàjjale ñu def ñaari garas waaye garas bi benn la woon kon ñun ñii ñun ñëpp ñoo bokk ndey baay ñu bokk luñ bëgg ñu bokk lu ñu wut